internationale. abonné leen ci suñu chaîne yu wér te wóor mi ak ci mbir maa ngi xewee kunun ajuma ji ñu weesu. soxna sii di wuyoo Hélène Ndour la ñenn ca waa dëkk ba songu bërëbu liggéeykaayam di ab bar restaurant boo xam ne mu ngi ko def ca kër ga mu moomal boppam ñi def li ni mel ne bëgguñu euh, lii di ab baar nekk ci seenub gox rawatina nekk ca buntu dëkk ba jot nañu fa yàq nag lu bari ci ay bagages te jël nañ fa xaalis ak i portable ak yeneen bu ñu sukkandikoo ci soxna si nga xam ne kon moom moom béréb bi. Euh, maa ngi nuyu population bi yëpp euh, di sant yàlla bu baax a baax bu nga action bi bu ma fekkee sant samay ñaari waajur yi. Euh, parce que xëy na affaire bi mënoon na gën a grave lii su fekkoon ne fekkuma fi mais heureusement man la fi fekk ak sama quelques employés donc euh, man yàlla may si sutura jox may daal ba kenn amu si gaañu gaañ mu nekk nag loo xamante ni def ma bett bett na ma vendredi mais bettuma woon bëttuma la fois passé parce que yàgg nañ koy mbëbët donc euh, moo tax ma ne bëtt na ma bëttuma jour bi bëtt na ma mais action bi bëttuma comme bettu la wax nga ko léegi yàgg nañ di ko mëbët ana lan ma waraloon ko est ce que mën nga remonter à tuuti origine conflit waaw parce que conflit bi dafa jóge ci terrain bi d' abord la commencé terrain bi nga tabax terrain bi ma tabax Euh, sama voisin euh, bu ma tabaxee bu ma jëlee terrain bi ci la ma naa ko jaay terrain bi à cinq millions parce que da ci am projet boulangerie pâtisserie mhm. ma ne ko man aussi dama ci am projet moo tax ma ko doon wër ba gis ko ba yàlla may ma ko jënd ko ñu def un an mu proposé waat ma dix millions mu ne ma naa ko jaay dix millions ma ne ko man jaayuma mhm. parce que man li ñu ci bëgg moom laa ci bëgg mhm. léegi ah bon ñu bàyyi ba jour fondement bu may commencé fondement bi ci fondement bi nag ba ci bu muy pare lépp ay kii la fépp mu mun a rek am relation pour ñu interdire bâtiment construction bi jëm na ko mais comme yàlla def na antuwul parce que man tout ce que je fais je dama koy def dans la règle ok di lu yàlla lu yoon doxal loolu mm-hmm. sant moom lay doxal léegi bu ma demee ba nga xamante ne kii na ma war ubbi mu ubbi war ubbi. Mhm. mu ne restaurant bi nekk ci wetu këram parce que dafa asthmatique donc il a tout fait pour qu'on ferme le restaurant. kan la noonu. non comme on est en en cours d'enquête. ok ak la gendarmerie. donc boobu dama ci. mënoo révélé ok effectivement mënaguma révélé dara. parce que yoon aussi dafa am nu muy doxee. effectivement te comme ñu ngi def seen seen seen yoon seen ah, ah, liggéey. Ah. li may bàyyi ñoom mu yegal seen liggéey ba pare. léegi bu ñu defee noonu ba pare euh, mu ne restaurant du am ci wetu këram donc il a tout fait pour que restaurant du fi am. mooy sa voisin boobu quoi. moom sama voisin boobu. léegi euh, moo ubbi fi boulangerie pâtisserie mu ne du fi amee aussi parce que moom daa asthmatique euh, ma continuer rek di def kii fekk na comme restaurant la donc da ngay ay client on on est dans un pays laïque. Mm-hmm. donc da ngay am client chrétien da ngay am client musulman. donc comme client chrétien aussi dañuy soxla seen al dañuy def on est à la à boire de l' alcool. ci mhm. laa demandé autorisation licence ci laa def dépôt bi autorisation licence bi. ok léegi ci euh, lañ ma ko may ma am grande licence la commission est venue à valider la licence la demande avec ak entre service yi ko war a defar yëpp nag ñoom ñoo ñëw valider ko. donc j'ai eu ma grande licence. bu loolu weesoo ñu ne baar du fi nekk parce que aussi comme dama am ay musulman am ay catholique ma ne kon je le bar et le le restaurant. parce que am na ñoo xamante ne ils ne veulent pas des musulmans parents musulmans yoo xam ne dañu am ay alcool ak yooyu noonu. donc j'ai j'ai divisé le le en deux. donc ma def bar fii restaurant bi fii. bug mhm. bëgg ñëw ci restaurant bi nga ñëw restaurant bi bar bi nga def bar bi. parce que affaire bi bar restaurant la. ok ci licence bi. ok waaw ah, restaurant bar la donc am na autorisation exploité baax bar. Euh, bu loolu weesoo ma ne bar du fi nekk mu bind def ay démarches am yëpp niveau administra niveau administratif. donc bu loolu antuwul aussi parce que dëkk bi dëkku yoon la on est dans un mhm. un pays de droit aussi. Mhm. léegi mu paree am nañu aussi quelques membres yoo xam quelques gens de la population yoo xamante ne aussi ils sont contre sont contre mais tout en lu dul moom parce que moom si boppam moo dem dugg comme xam na ne léegi côté administratif bi mënatu cee am kii parce que man j'ai mes documents tous mes papiers. Mhm. Mhm. léegi ñu def ko na waa population bi de façon toutes les autorités fi war jaar jaar nañ fi donc xam nañ ne man je suis la loolu weesoo euh, comme devanture bi nii xam nga li bokkul ci kër gi ok donc j'ai demandé à la mairie euh, une j'ai fait une demande de de euh, ODP mm mm-hmm. euh, occupation domaine public donc euh, ba mairie bi accordé ma maire bi accordé ma ko ba fay naa fay naa trésor ba pare donc décret bi rek moo des lu jiitu ñuy seq waxtaan sax ak soxna Sidi Hélène Ndour dem nañu kër chef de village ba ngir mu indil ñu ay leeral ci mbir mi nga xam ne kon moo fa xew wante sax ci ay kàddu yu gàtt lañu xamal ne moom du si àddu ndax li xew weesu na ba noppi. Hélène Ndour dañu nettali li xewoon ci bésu ba ajjuma jooju muy loo xam ne du ko gaaw a fàtte. Par ma grande surprise nag j'ai vu que le vendredi bu ma déggee bruit bi après ci laa gën le voisin boobu laa fekk ak un ak quelqu'un quelque ay groupe am mu sensibiliser ñëw di fi too ñuy gis na fii di ay marto moo ko toj donc amul xeer amul dara tout ce qui est ay porte vitrine yeeg bureau beeg sàcc sama ñu dem en plus dañoo sàcc ventilo yi sàcc télé yi sàcc lépp lu ñu mën a yóbbu daal yóbbu nañ ko waaw non seulement ils ont détruit mais ils ont volé sama lépp lañu sàcc hmm. gis ngeen lii yëpp li ñu toj ñu gis ngeen ko gis ngeen li ñu toj nii léegi nag a ah, ñu jaar ci yoon rek. ok waaw yoon xëy na yoon dina def lu lu ko war parce que dans un nous sommes dans un pays de droit et nous dans un pays laïque. dëkkandoo boobu Hélène di tudd ci biir waxam dem nañu ba këram ngir taataan moom itam ay kàddoom wante dañu xamal ne nekku fa bi ñu laajtee numéro am itam ngir jokkook moom ñañu fa fekk dañu ko lankal. bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne moom mooy. attaque bi quoi ana ah, nan la demee da ngeen toog rek ba dégg ñu dal seen kaw di attaque ah, ana nan la demee attaque bi nu mu waaw ku fi nekk moo fekkee mu woo ma ne ma xanaa nekkoo fi ma ne ko ah kay parce que man maa ngi woon ci biir tëdd ma ne ko maa ngi si biir mu ne ah gaa yaa ngi attaque sa kii bi de ma ne ko ah bon ma ne ma bu ma génnee ah mu mu nekk dëgg léegi bu ma demee ba bëgg a woo gendarmerie ñoom ñu agressé ma jël sama portable. sàccaale aussi beneen portable bi ak tablette bi ak sama 200000 yi nekkoon ci pochette bi ci laa dem ci laa contourné foule bi après dem jël sama oto dem gendarmerie bi ma ñëwee ak waa gendarmerie aussi fekk nañu saccagé lépp tuuf donc ñoom jël nañ ay seen vidéo jël nañ lépp donc ñoom ñooy c'est à eux de juger daal man dama koo bàyyi ci seen loxo parce que wóolu na leen. fi mu nekk nii yoon lan la ci jar a def am na ay. Ah. peut être ñu ngi si jàpp ak ñu ngi identifié. ah loolu man <laughs> mënaguma ci wax dara en tout cas daal xam naa ne daal dem nañ foofu am def nañ audition donc maa ngi leen déglu man mënuma ci prononcé wu lépp affaire bi en cours la nekk donc am na yoo xamante ni mënuma ci wax itam. góor gii di Marcel Meng bokk ci ay kilifa yu communauté chrétienne ba nekk foofu la ca Kounoune yëkkati na ci ay kàddu. nekk na loo xam ne lii kenn mënu ko rafetlu mhm. parce que euh, réewu mbir mi Sénégal euh, dañu ne benn bopp la mhm. Sénégal lu mu tax mu nekk benn bopp loolu mooy dañu bokk jëmuwaay mhm. bokk lépp euh, commencé ko ci Adama ak Awa donc kër goo gis fii am na catholique am na musulman kenn man mii di wax nii suñ Alpha combal bi nekk Mawla suma maam bi jur suma yaay may bàjjanam askan mm-hmm. eh, eh, boo demee ci murit yi ñooñu sumay maam la donc eh, bu xew amee bu toogee doomu na a ràññee catholique bi ak musulman donc loolu mooy Sénégal Euh, lii nii am na tànk ñu ci doxal mm-hmm. euh, c'était au mois de mai si je ne m'abuse euh, ñu interpellé ma ci lii nii boobu laa yëgee ni Hélène am na baar ñoom laa ci village bi laa bu ñu demee ma ne leen waa man ubbi naa pour waxtaan ginnaaw jàmm rek la woote te lépp li ñu waxtaanul duñ ci mën a am solution. Mm-hmm. donc ci laa dem euh, ñu toog ak euh, chef ci këram euh, waxtaanee foofu lii. Mm-hmm. bi ñu ma waxee ñoom seen mbëbët ci lii ñoom seen mbëbët lan la woon ni fii dëkk cosaan la. Mm-hmm. comme dëkk cosaan la te Hélène fu mu nekk bunte dëkk bi la. te bunte dëkk mooy taaru dëkk. bu ñu sañoon fii ci buntu dëkk bi lépp lu koy taaral daal moo fay nekk. te bokkul li koy taaral baar. waaw lii lañ wax ma ne li ngeen wax nii maa ngi koy soog a dégg seen làmb comme dégg naa ko nii te ki ngeen wax ci man la bokk il faut que ma dem ci moom ma xam aussi eh, eh, nu mu toogee. maaleykum salaam waaye def ko mënu ma toog nii wax leen nag lii mais bu fekkante bi yàlla may na ko am kayit mënuma ko ne bul liggéey. ok waaw ndaxte nit ki eh, bu liggéeyulee du am lu muy suturloo. moom jigéen la yor ay njaboot faaw mu liggéey pour mën a sut sut sut suturoo donc euh, te Hélène mi ma xam bu mu dëkkee ci dëkk bi ba tey njëriñ rek laa ko gis muy indi ci dëkk bi hmm. donc euh, te ci yéen la bokk bu li amee euh, gëm naa ne jublu jublu ci def lu bon waaye xel da mën a fay may leen ma ma dem ci moom wax ak moom bi ma demee ci moom wax ko mu xamal ma lu bare comme ni leen wax nii sax. Hmm. ni coow bi bare la yàgg eh, lépp lu mu mës ubbi ñu fexe ba yàqal ko donte li muy liggéey day dox. Hmm. te eh, lépp lu mu ubbi eh, njëriñ njëriñ bi du doon rek ci moom indirectement day njëriñ ñi koy xeex boo jëlee exemple man mii jóge di waaxu fee di ñëw pour seet ko fii. bu ma doxee ba ci yoon bi gis lu ma bëgg a jënd mais naa ko jënd te bu ma nekkoon sama kër bi suma xel euh, euh, euh, du nekk ñëw bi fii jënd ko mais li tax ma jënd ko seet ci elal mooy tax ma dem ba gis loolu mm-hmm. ma ñëw jënd ko kon indirectement mu ngi mu ngi njëriñ ñi ki ki koy xeex sax donc ñàkk xalaat bu sore moo indi lii donc lu ñu waxtaan la bi ma demee ci euh, ma wax ak moom ci li ñu ma wax fee moom dafa ne moom xamul feneen fu mu koy def loolu foofu. ok parce que yàgg na di luwee feneen mais euh, à chaque fois c' est des problèmes donc comme c' est des problèmes fii mu nekk këram ba amul feneen fu mu ko doon def euh, fii la ko mën a def te jublu ci lu bon lu baax moom la ci jublu donc ma dellu wax leen ko. Mhm. bi ma delloo wax leen ko. ñoom ñu ne ah ginnaaw noonu la te dafa jaar yoon ba mu am kayit ñoom aussi nañ jaar yoon ba am lu ñu bugg aussi ci eh, lii toxu fii. Hélène nag ne mbir mi bàyyi na ko ci loxoy yoon te comme Sénégal nag réewu droit la yaakaar na ne yoon dina ca def liggéey bi war. lay xaar que justice soit faite parce que dama ci investir ay millions daal nekk jigéen bi liggéey di daan sama doole dugg ma ci caaxaan dugg ma ci tappale. ma dem banque ñu lebal ma lu mu ndaw ndaw ndaw am naa ci dix-sept million def naa fi dix-sept millions léegi ah man taas nañ ma que justice soit faite daal waaw. ma ne tey boo doon xayma peut li ñu yàqal fii boo ko doon xayma si ñaata lay. <laughs> ëpp dëgg ma ne première fois bi pour kii bi dix-sept millions laa leb. ok la banque amaane témoin xëy na ñu ko dina ko am dix-sept millions. la ci dugal sans compter ay imprévu yu bëri yoo xamante ne mënuma ko wax daal parce que ay réparation ay yeneen ak yeneen loo xamante ne kii et les 17 millions ne font pas partie du bâtiment ça c'est la c'est l'investissement du bar bar bi restaurant bi waa mais le bâtiment daf fekk ñu pare bâtiment beneen cas mais min de rien j'ai dépensé 17 millions là-dedans déjà li ñu ma yàqal ci boisson alcoolisée rek bëri na rencontré li ñu volé man sàcc yooyu noonu yëpp donc mu ngi noonu daal. dañoo yàqaale ci restaurant bi aussi wala. mooy restaurant bi baar baa ngi ci biir. restaurant bi dañoo sàcc chaise yi sàcc table yi tasaare kii yëpp frigo yëpp tout ce qui est dans le restaurant lu ci bari dañ kaa sacc de même que le de même que le bar boisson bi dañu dañ koo toj yi dañ koo yóbbu cuisine bi <laughs> matériel yi fa nekkoon yëpp sàcc nañ ko four yeeg am micro-ondes yooyu yëpp yóbbu nañ ko donc y a beaucoup de matériel qu'ils ont amené waaw bu ñu mënta yóbbu daal lañ fi ba ok dañoo yóbbu ba yóbbu denrées alimentaires yi diwlin yeeg ñoom seen waaw. lan nekk sa kàddu bu rek. ah man di <laughs> santat rek. Hmm. bi nga xamante ne amul gaañu gaañu. Eh, may ñaan yoon mu def yoon mu def waree fam mu def liggéeyam que juste soit fait hmm. parce que fii nous sommes tous des citoyens. waaw nu sommes dans un pays de laïc pays laïc et nous sommes dans un pays de droit. Hmm. waaw que justice soit faite man daal loolu lay wax. di gërëm di leen di gërëm nag di leen di sant aussi. Hmm.